nekk ma ni kon ki na xam ne moom euh, El Malick Ndiaye nag jamono jooju li na xam ne moo di lu nu mel. wureegul euh, jëm ci li nga xamni ne itam doon nañ ko daal di toppee men fàttali boobu audio nak ki nga xam rek modi di Mor Kassé moom moo ko daal di kon le parquet a interjeté appel pour m'envoyer en prison je serai édifié par le président de la chambre d'accusation ce mardi 22 août 2023 ma ni kon tey jii dina daal xam xam day day delluwaat ci kaso bi wala kon wala kon ma xam dafa daal di delluwaat le parquet moo daal di li nga xam nekk moo appel fustigeant li nga xam nekk moo justement la libération bu El malik ndjay ma kon le procureur batay mi ngi ci ben logique bi nga xam xam ne itam jàpp na ni ki nga xam ne que El malik mm, euh, walta walta daal di war a mën itam d'accordul par rapport à sa libération borom mu daal di interjeté li nga xam ne que appel donc la chambre d'accusation tay ji dafa seen daal di statuer ci kaw ki nga xam ne que El malik ñay alors Alphonse ben commenter nga si def fait ah, mais comme tout le monde ah parce que El malik ñay fan yi dafa nek di wër télé yi euh, di andi ay révélation di wax moo tax il faut que le procureur Abdou Karim Gueye Diop mu mu interjecté appel ci audio bo xamantene ne xam nañu ku ko wax man sa pour man paré nañu ci audio Pape El malik bob mais pourquoi à chaque fois il faut que quand ça n'arrange pas quand la personne commence à prendre de l'ampleur il faut que nous out euh, lu dougalé des bâtons sur ses roues mais ce qu'il a c'est attends le le le le fast track qui continue interjecté appel tel les de face sur son sort au, niveau du juge appel télé non mais écoutez ñaata dossier lañ def appel ba légui ñu ngi xaar ñaata appel la def ñu xaar l'appel de Madiambal et Suleiman Telico. ça va faire bientôt trois ans sinon nous a deux ans mu ngi xaar ak keneen ak keneen El Malik, c'est quoi il faut faire appel parce que fanny il mu ngi ñu invité ci plateau yi mu ngi commencé di il devient dérangeant il dérange maintenant il faut interjecter appel pour ñu dougal ko comme on le fait ça donne raison à ce taxaw di avons ay membres Pastef yi les les doyens moi maanaam ñoo xam te dañoo positionné wu bu baax mais ça donne raison à ñooñu. mais enfin euh, mais El dit euh, Ndiaye audio man je vais parler du cas de l'audio non non écoutez l'histoire des audios là il faut que ça s'arrête l'histoire des audios il faut que ça s'arrête hmm gis nañu fii ay audio aji sar ba mu avoué ni que moom ba paré muy naan damay naxe kan moko japp mais taxul procès bi amna na aji sar Ousmane Sonko amna pourtant amono ay audio yu génn fi ba mom la aji sar mu avouer ni mom la à la section de recherche wala sûreté urbaine. da doon foo da lan. Hmm. mais pourtant audio yoy lañ nekk di japp ay nit def na fi japp nañu fi ay Corox Mandela japp fi ay Malik mom ñu ngi koy encore à travers ce audio audio bo xamantene Mor Kassé ñun xam nañu le propos de l'audio ba ñi ñu sénégalais pour ñoom sax affaire bi jeex na on fait aujourd'hui interjecter appel ci audio boobu audio bu banal boobu boo xamante ni ñi xam nañu ku ko wax il faut que ñu tëj waaji jaay ko doole tëj ko ci loo xamante du moom moo ko wax mais c'est ça le problème te audio bu fekkee pour mu audio bi nekk crédible audio bi buñ ko waree eh, appliquer wala bàyyi ko l'occasion leur permet ci Adji Sarr ci à travers ces nombreux audios bo xamante ne wax na ba nga dégg ay kilifa di wax fofu ci audio bi ne ko bu procès bi jeexee dinañ leen defal li nga bëgg mais il faut que procès bi jeex mais tout ça Adji Sarr ne man mako wax man aji man mako wax mais dama doon foo wala dama doon naxe koy nax ci audio. normalement justice sénégalais fan la waroon réparer image am ci le dossier Adji Sarr Ousmane Sonko audio yi bu mu génnee ba ñu laaj la ba nga ne man jarul beneen baat buñ ci teg nañ la yóbbu kaso directement mais aujourd'hui ñu tëj ay nit ci audio ñu bàyyi audio di tëj ay ñeneen ci audio loolu yëpp Sénégal la xewee on continue d'observer et on continue de dire que c'est un état de droit woy force restera à la loi dëkk yoon la voilà on va défendre la justice. Moi, j'ai l'habitude de dire, personne ne peut défendre la justice. C'est la justice qui, défend, qui se défend elle-même. C'est la justice qui défendre Sénégalais. Yep. Okay, Sénégalais ne défendre la justice. La justice, moi, wara réparer l'image. Ok, c'est clair. Euh, une justice équitable, pour les Sénégalais. Yep, c'est clair. Alors, euh, euh El Marie Ndiaye, le procureur a interjeté appel faisant état justement sur sa libération. Donc, on est sans plus tarder euh, du côté de la régie, que Modi, une dernière à partie bu seen matinale d'information le truc de matinale c'est la une des journaux alors da nga koy daal di commencer sans doute ak li nga xam nekk moo une bu njëkk bi bokk na si xët bu njëkk bu li nga xam nekk moo bu euh, la tribune mu daal dit exactement ak li nga xam nekk moo 142 universitaires nag ñoo daal di euh, li nga xam que Modi di euh, invité le président Macky Sall pour mu daal di beere ki nga xam nekk moo Ousmane Sonko man ni kon Serigne Diop mu nekkoon ancien ministre de la justice bokk na sa ñi nga xam ni itam jamono ji ñoo daal di porté boobu li nga xam nekk moo combat ak ki nga xam que Modi Aliou Sall en tout cas le chef de l'État euh, invité à mettre en œuvre ces mesures afin de restaurer la paix ma ni ko ñu ngi ñaan li nga xamné ne modi le président Maxal Sall dakkal gi nga xamné ne itam di afin que jàmm wala daal di war a mën a ñëwaat réew mi si xët gu bu la turbine leneen itam bokk na xët gu njëkk bu le waxaasi ci daal di exactement ak Mirou euh, ki nga xamné que modi Robert euh, Edouard Mendiak compagnie le dossier criminalisé 24 personnes différées hier ma ni kon ki nga xamné ne modi Edouard euh, Mendy ak ñi mu àndal dossier bi na bu di criminalisé daal 24 personnes mujj neen dal leen defeere si gu ñëkk bu libération mën ko le 10 août loxo le président bu euh, GPS Sam Notaire nak ak ñeneen ñi nga ni itam dañ leen dal daal di association de malfaiteurs relation avec une entreprise terroriste financement du terrorisme complot contre l'autorité de l'État ak atteinte euh, à la sûreté de l'État l'olinda leen daal di topé man ko euh sûreté urbaine mo leen dal di euh, interpellé Nafidian

mais mu di démb nag la ligne top et beaucoup association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste financement du terrorisme complot contre l'autorité de l'État ak li nga xam que atteinte à la sûreté de l'État afin 24 personnes euh, fa nga xam ex-passif mu ñu leen daal leen defeere naka démb terrorisme Ouais, ben, euh, man, euh, commentaire du, du, du, du, du, du parce mm. que mon terrorisme, l'union terrorisme au Sénégal, man man man je xaw ndax am parce que terrorisme euh bo ne quand euh, clan terroriste musuko revendiquer mais on continue de dire c'est des terroristes qui sont au Sénégal di jappé ay jeunes jeunesse Sénégal comme des terroristes la jeunesse sénégalaise ñom lañuy woyé ay terrorisant hein, ay terrorisme ay terroristes donc euh, euh, man mota mané la man sama commentaire du du bëri fofu parce que man an bima bima don bi ay commande ay ay terrorisme ci ay yeneen rew yu melni Burkina yu melni Mali ay ki leen bu fekke lolou mo am Sénégal ah xamna naa mom duñu moom fi ñu bay tal euh, di wax ay ay terrorisme non non mais bien sûr man lu woyé terrorisme la wax au Sénégal man mënuma ko woyé terrorisme parce que man man man man ampleur terrorisme ak lu ñuy boo demee ci dëkk yoo xamante ne am na terrorisme dëgg dëgg dëgg boo leen tuddee moo boobu dañu lay ne bàyyil wala dañ lay dàq ci ci réew boobu mais fii Sénégal c'est comme si ñun euh, tuur yooyu balaa ñuy kontaan autorités yi balaa ñuy kontaan foog ñu ñu ñu ñu tudd tuur yooyu